gis nga gis nga Macky Sall Macky Sall Macky Sall yërëmal sa bopp mag da ngay yërëm sa bopp gis nga président usmaan Sonko C'est une fierté nationale. C'est une fierté africaine. Protéger Ousmane Sonko, c'est protéger notre démocratie. Protéger Ousmane Sonko, c'est protéger les libertés. yow ci sa bopp xam nga ni dangay bokk Ousmane yow ci sa bopp xam nga ni dangay bokk kenn moo bokk rek moo dul bokk kenn rek moo dul bokk muy kan muy kan gis nga mag Macky Sall gëñ ñu nekk ay njaacaar gëñ ñu nekk ay njaacaar moom ci boppam du Ousmane lay tere mu bokk de parce que xam na ni mënul nekk li muy jéem mooy nu mu bokkee wante du bokk te Ousmane dina bokk gis nga li ma bëgg ngeen xam ko mooy sénégalais yi ni nekk ci biir réew mi ñi nekk au niveau de la diaspora xam leen ni l'heure est grave quand l'heure est grave cela demande la détermination de tout un chacun est-ce que vous êtes déterminés est-ce que vous êtes déterminés Ousmane je l'ai dit à travers un communiqué tu as mon soutien total tu as le total du PRP tu as total de Yewwi Askan Wi gis nga Macky Sall moomul Sénégal gi te daan ko wan ni moomul Sénégal gi ndaxte ndaxte ñun Sénégal daf noo ñor te nag te nag na xam ni benn mbir moo ko fi dese mooy génn bu rafet na jéem liggéey ci génn bu rafet lu dul loolu lu mu fi yëkkati ñu jàkkaarloo ak moom Ousmane doo ko fi laal bul ka laale merci beaucoup merci beaucoup